damay d'abord rappeler lan mooy parti politique ak lan moo tax a jóg parti politique ak lan moo tënk parti politique ak li ko tënk bu ci fekkee ko lan moo ko ci mën a fekk parti politique association du leneen mbootaay yi nit ñi di formé ci yeneen domaine moo parti politique benn la boo demee ci code bu ñuy wax code des obligations civiles et commerciales laata sax code des obligations civiles et commerciales constitution moo ko njëkk a posé principe bi dans son article 4 boo ñëwee ci code des obligations civiles et commerciales nga dem article 812 à 814 mu leeral la parti politique association la nga jóge fa nga ñëw ci benn loi bu 1981 bi régir parti politique yi mu leeral la ni association la et obligatoirement obligatoirement boo boolee texte yooyu dañ lay wax ni parti politique su la forme d' association sénégalaise rek lañ ko mën a tëggee am beneen loi bu 1989 bu indi ay coppite ci loi bu njëkk boobu di loi wu 1981 loi yooyu yépp boo leen boolee li ñu wax mooy parti politique li ko tax a jóg mooy dagaan baatu askan wi waaye yar yar ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay membre ak ay sympathisants parti politique li ko tax a jóg mooy yar mais parti politique taxu koo jóg yàq taxu koo jóg détourné taxu koo jóg réeralaate taxu koo jóg yàq te loolu moo tax charte yooyu tënk parti politique wax ci bu leer nañ ni parti politique ci ni muy doxee am na lu ñu teg ndoddam même ay statut dañ koy déposer d' abord il faut une déclaration et un enregistrement buy juddu au niveau du ministère il faut que mu am ay statut statut yooyu même bu ñu koy modifier bu ko ministre de l' intérieur refusé bu fekkente ni doxaloo rejet yu ministre de l' intérieur bu accepté wul ay modification statut te loolu motif de dissolution la su dee ministre de l' intérieur accepté wul modification wu parti politique motif de dissolution la bis bu jëmmi jamono nag bu ñu demee ba jëmmi jamono ngeen waxtaan ba d' accord ak ci leneen mu yéen les honorables députés bu boobaa mën nañ ni jàll nañ ci beneen phase mais ba fi may waxee nii tey parti politique ay statut dafa war a dëppoo ak charte réew mi dafa respecter constitution dëppoo ak respecter souveraineté nationale dëppoo ak respecter li nga xamante ni mooy démocratie mais ñu teg ci leneen modification bi loi de 89 indi ci loi de 81 bu fekkente ni dafay troubler gravement ordre public wala liberté yi conséquence bi sanction bi mooy mën nañ ko dissoudre mais ana kan moo mën a weddi fii Sénégal 21 ak léegi ñaata yoon ngeen dégg ci jiite parti bi wala banqaasu parti bi woote wax ni génn leen taal leen yàq leen rey leen jël leen xaalis bi nekk seen biir ko ñaata nit ñoo faatu ci ay manifestation ñaata nit ñoo yàqule ñaata édifice public la taal ñaata édifice public la ñu yàq ñaata brigade de gendarmerie lañ attaqué ñaata commissariat de police lañ yàq ba ci premier et deux juin bii passé ñu dem université yàqu ko jël ay ambulance ay corbillard corbillard ak ambulance di ko taal kooku du rôle parti politique waaye li gën a yéeme li gën a yéeme mooy parti politique boo xam ni da ngay wax ni ki ko jiite damay dajale ay nit dem génnee Macky Sall def ko comme Samuel Doe dina jël sama bakkan waa ma jël bakkanam bu ngeen dee seen yaay juraat mais kooku bokkul ci politique alors à partir de ce moment en toute responsabilité et dama ciy profité pour tontu benn question l'inculpation de Ousmane Sonko n'a absolument rien à voir avec la dissolution du passé. Absolument rien à voir. Parce que parti politique, association, la nit bu ñuy topp coon dañuy topp coon te ba keroog yoon di ko daan dafa am lu ñuy wax présomption d'innocence parce que loolu mooy yoon te loolu la loi tëral